l'emploi des jeunes. Moi, je crois que man, agent de communautaire là, mon dama bëgg jini, yi nañ dem jàngi Parce que balaa nga emploi des fekk nga am xam-xam. Boo amul xam-xam emploi. Parce que ben, man je trouve tey ñun un jeune bu wax ne yaa y a ngi opté pour ce développement localité. da nga pour xam lan développement local. mais xëy man yàlla defal na man sama bopp man. Je suis un ancien de brigade nationale de sapeurs-pompiers. J'ai fait 25 ans au sapeurs-pompiers. Mhm. Je suis un fonctionnaire de l'État. te ba tey maa ngi liggéey si benn bu mag xam prévention incendie. Mhm. kon man j'ai pas besoin de dara. mais expérience bobo. est-ce que nous ñëw nga partage ko xale yi. expérience bobo. def naa ko c'est-à-dire. Mhm. ils n'ont pas voulu m'écouter. xam nga mën naa la mën naa la woon benn benn projet bi. moo la mën la vas-y li non projet wu emploi. non emploi emploi problème emploi yi la ñuy wax quoi. non emploi là, parce que mon emploi t'es dit, vous nous waxee si côté euh, environnemental mais mhm. je crois que vous nous xoolee après la restructuration t'es dit boo xoolee yaraax dañ koy restructurer mhm. donc t'es am na ñoo nous ni mhm. war nañu mën a emploi côté côté assainissement wala côté environnement surtout côté côté assainissement on a vu si suñu quartier ay femme femmes yoo xam ñi ngi bale ñi ngi bale dëkk bi ñi ngi koy emploi man mairie bind na ma laaj

ñu jëm jël ay jeunes pour au moins bu côté euh, je crois que je deuxièmement ñu créer environnement xam parce qu'on a constaté Anne, la majorité des jeunes parce que lan parce que mais la majeure des jeunes mhm. on a senti que

Euh, merci merci président voilà après me retourner donc euh, les jeunes ont besoin de se former d'être formés hein. parce que affaire aussi bureau quoi emploi amna. voilà euh, en tant que mère de famille nga aussi yow ban ban ban ban ban ban ban appel nga ciy lancé. Mhm. Mhm. te fii ku nekk gis na xale yi eh, gis na xale yi am na yenn heure yoo xam te ne boo ko demee ci tefes gi mhm. di ngay gis ñu toogaay toogaay boo xam ne li nga xam ne ñii liñ fiy def du lu jub du lu jub te demuñu géej. demuñu géej li nga xam ne ñii defuñu lu jóg. Mm-hmm. loolu def nañ ci ay waxtaan ñun bàjjen yi. Mm-hmm. waxtaan ak xale yi. Mm-hmm. mais dafa nekk euh, benn mbir boo xam ne dafa lu lu méttee saafara ndax ñun dox nañ fi ay jéego yoo xam ne ay xale yoo xam ne dañ leen gis. yu def naka su du noonu. dañuy dox yenn euh, heures yi dem waxtaan ak seen i ay parents. mais dañuy gis ne dafay mel ni dañ leen di. protéger wala dañ leen di ah. weddil mm-hmm. parents yi ñooy ñooy ñoo leen di dafa mel ni daal ah. ci dañ leen di weddil di leen mm-hmm. couvrir mm-hmm. te loolu moom jurul jàmm ci quartier ci quartier ndax loolu vraiment nekkul loo xam ne bi bu baax ci jeune ah, bu ñu sañoon nag suñu doom yi jàngi ñu dem jàngi am ci lu ñu jàpp dimbale teral seeni seen seen waajur teral seen bopp xale yi nag fi nekk nii wax dëgg neex yàlla comme ni ko kii waxee. Mhm. xëy na maire bi am na loo xam ne war na see mën a jàpp. Mhm. ngeen defal leen ay formation yoo xam ne. Mhm. comme ni nga ko waxee du bureau bi rek mooy métier. mën nañ am yeneen yoo xam ne den ci liggéey. te du xëy rek dem ci bureau bi loo xam ne suñu doom yi den ci biir gox bi. waaw loolu moom bu amoon wax dëgg neex yàlla dinañu gën mais ñun bàjjani ñu tout le temps ñi ngi waxtaan. di waxtaan a xale yi di leen sensibiliser. di leen moytuloo yu bëri comme dugg ma dugguma ci mbir boobu du ma ko mën a tudd fii mais mhm. xam ngeen li fi ma bëgg a jëm mhm. mooy xale yi daal ñi ngi fobee seen bopp ci yoo xam te ne bi du leen indil lenn suba mhm. leen yàqal peut-être ci mel nan la yooyu ah, parce que ñu ngi wax waxu insécurité waaw insécurité ah, wala ñuy nekk daal di jëfandikoo yoo xam te ne bi ah, dina indi dina gàllankoor yan ci yan ci <laughs> yan ci yan ci seen wér gu yaram yan ci xaw ma ndax sañ naa ko tudd directement nii. Mhm. wala déet. Mhm. en tout euh, président association yaa ngi fi. voilà ah président Mbaye président Mbaye li may wax. am na lu ñu ci gis am na ci ci ci ci foofu de nee na booy booru géej la ñuy booy booy booru géej nekk waaw. di def naka sudul noonu. naka su noonu comme noonu. waaw loolu moo ko wax. <laughs> Ah. <laughs> waxu loolu gay ah. waxu loolu gay ndax booru géej ñun ñu fay fréquenté di fa nekk chaque jour. Mhm. ñun ay mool lañu. Mhm. suñu mbaal yi fa lañ koy wàccee. Mhm. fa lañ koy wàccee fa la ñuy defaree suñuy mbaal. dem géej daal dañ jàng nag. mais géej gi moo tax sax ñu bàyyi suñu jàng ndax bi ñu war a def BFM. la ñu kitee dugg ci géej géej yooyu affaire yi mel noonu. teewul comme ni ñuy demee géej nii ñi am bac plus ñeewuñu leen parce que duñ joxe xaalis bi. trésorier bu waree yor xaalis du ko yor dañ koy jox secrétaire. Mhm. ndax comme Sénégal lu muy doxee. Mhm. te ñun loolu mooy suñu premier problème. comme li ñuy wax ay yan li xam association yi ñu ngi def ay kii. Mhm. ñu man sama wàllu bopp. trente femmes montagne cinq def jox naa leen financement. financement boo xam ne maa ngi ko jëlee banque Cofina ci secrétaire bu tudd Amina. après da nga jaar mu jaar ci Ndeye Alima Ngom. non après da nga jaar service commercial. kon ñun ñu ngi nga xamante nii duñ nekk fii di ko wax. Mhm. parce que ñun li ñuy liggéey. Mhm. subvention subvention bi nga xamante ne moom la conseil de quartier bi jot. Mhm. buñ ñu ko joxoon nga xam. quartier bi dinañ jëg ne subvention dugg na fi. du muy AIC bi. muy jàq ji fu ci nekk AIC bi. ñun association yi ASC jàppoo jox nañ ko 775 mille yoo xam ne ñun ñoo ko jox desoon ko regroupement desoon ko lépp kon association yi ñu liggéey yooyu union des associations bu am montagne cinq ñun ñoo ko liggéey Mbaye Senghor mu may dégg Cheikh Souare président Cheikh Souare tamit mu may dégg mais yéen yéen yéen concrètement lan ngeen def ci emploi des emploi des jeunes. Mhm. ñun liñ ci mënoon mooy restructuration bi mu taxawee. Mhm. am na ay jéego ñu ci defoon. Mhm. def ay recensement. andi woon yenn jeunes yi pour ñu def formation ci pavage yu mel noonu. même ci nga xamante ne tey jii association yi ci boppam. teewul tamit seen i éléments tamit mu leen di recruter. te mu ngi leen xamee ci association yi. loolu du emploi des jeunes. mais ñun nag fa ñu nekk di fa liggéey moom. gaal yi ñuy gaal ko ci nekk dañuy jël cinquante jeunes wala soixante ñu ndax fii tey jii kii toog nii tey mhm. président ay chef ma faran toog mhm. gaalam man faran ne mhm. cinquante personnes lay employé wala au minimum dina ñëw bu quarante personnes kon ñu ngi def dara ci emploi des jeunes ak leneen ak leneen kon ni ñu nekkuñu ci quartier bi di toog di ci non ñun ñu ngi ci lépp merci ci développement merci waaw mais développement dama lay fay tuuti développement tamit nekkul bëgg ak fëy de. boo demee jàng ba jël licence ci développement. Mhm. te doo ca li ñu war a développé sa poste la nekk. Mhm. doo développé dara doo mhm. boo xoolee tey jii administration kese ñoom ñooy luubal fii ñu jógee ñu génnee daara ñëw. Ah. Ah. ñoo yor réew mi de ñoom Cheikh Amar ak <laughs> ay ñoom kii ngay gis bu sox sono. Badiane Badiane nee am xale yoo xam ne dañuy nekk ci tefes gi. Uh-huh. wër géej gi di def naka suñu mool yi dañuy daan seen doog. dañuy mbay mi na ma man xam naa. waaw ah, ah, ah. xam naa mool. mbay dafa bañ a wax quoi. waaw mais waxuma mool mais mais mais Moussa. ay jàmbaar la ñu bëgg liggéey. waaw les jeunes ñi dem booru géej. ñoo xam ne mu demuñu waaw. waaw waaw. dañ koy xool rek fan yële fan yële ba géej gi dëgëree ñun ñëpp si ñëpp man mii rek laa la pour te dire man parfois damay toog affaire dëgg damay woo bay dem place mu teer may ma jën ma jaay ko am lu ma def sama poche suñu maman yi ba géej gi dëgëree gis nañ ñu raax nu mu demee taroon na trop jaay ko de fondé timis na seen fondé di jeex ndax kenn mënatul lekk sandwich kenn mënatul lekk hamburger kon moo li gàcce ngaalaam ñoo ñuy wax ñooy toog si booru géej gi man damay man maa ñu si bëri damay fréquenté ak ñoom parce que ay nit lañ ay être humain ay doomu aadama lañ ay ay dañu yor seen kër dañuy toog ak ñoom dañuy waxtaanam dañu la koy wax carrément ñun amuñu lu ñu téye tamit par exemple tey doo doo am loo doo doo toog sa kër yoroo dara di dugg sa kër fekk sa yaay xam nga sarax yi war a lekk lekkuñu wala naanuñu da lay situation li ñu naan ku balaa ngay euh, nit balaa ngay xam dëgg dëgg dëgg pour mu pour xelam mën a nax saa ci yenn détails rek mu xiif nit bu xiifee lu mu gis loo xamante ne naka suuf noonu la da def te ñoom dañoo amul lu ñu jàpp man li may wax comme li conseil de quartier bi di wax man man ci côté boobu ñun lañ koy woo en tant que président conseil de quartier xëy na moom bëgg na moom taxaw na pour développer quartier bi mais tamit il faut il faut dafa am loo xamante il faut mu nangu ko même bu fekkee moom xam nga tey mun nañ ko mais ñu xamal lañ bëgg ñun lañ bëgg en tant que acteur li ñuy def diko diko diko liggéey ci côté bi moom ak li mu yor mu ñëw ak ñun ñu and ñu liggéey toog teg ko ci kanamu quartier euh, population bi ne ñun ñuy ñoo bëgg a liggéey léegi population bi nee nañ lañ kii lañ wóolu ak kii ak kii kii bëgguñu ko kii lañ bëgg ñu àndandoo problème jeune yooyu yëpp ñun mun nañ wàcc xamante nañ ñun ñëpp ñii yaraax ñi fi nekk di wàcc tefes bi ak ñi ci kaw joor gi ñun ñëpp xamante nañ tey man miy toog fii man ñi ñi toog fii mën nañ wax sama sama sama sama juróom-ñaareel juróom-ñaareelu maam kon jaratul ñu ñu ñu koy ñu koy raay nañu waxtaan moom

di ko wax nag naka su noonu mais ni nga système bi nga xamante ne moom ñoom la ñuy doxalee doxul te moom xam na ne doxul doxul nañ toog si dëkk bi ñu ne moom nii ak nii lay doxalee ñan ñoo bëgg ñii ñi nga poste yi nga xamante ne ñoo nekk yaraax ñu war ko lijjanti war a jàppale jeunesse ñun ñëpp ñu àndandoo ñu boole suñu force ñu dem xeex loolu coow lii bañ ñu dalati mais lii bu ñu ko bàyyiwaatee mu sedd day gën a pire moom nag bu fekkee nag xam nga xëy na nag yaakaar ne na man en tant que doom damay taxaw di ko ngaan ñu nag ay doom ñooy ànd mami sama xarit la abi sama xarit la ñu boole ba mbooloo yi nii tey tey mu demee ni tey ko dem kon ça ñu nekk du ay caaxaan ñu boole force yi maire jàppale ñu autorité yi jàppale ñu de ce fait que ñu mën a sukkali suñu quartier suñu quartier ñun ñoo ko mën a sukkali wax ba maire wax ba dënn tàng tam bu ñu paree dañu war a toogaat sur la table ñu teg li baax ñu jël ko li bon ñu tegee ko nele parce que ñun loolu ñu tax a jóg ñëw ñu pour di ŋàññi kenn ñëw ñu pour di def di nii dara dañuy ñëw pour sokkale suñu gox encore une fois di lancer appel association yi ngi association yi nekk au niveau de Hann Montagne 5 yëpp ni ñu ko defee noonu lañ koy defee tey euh, dañ leen woo ci li nga xamante ne mooy euh, man message bi may gën a mooy kalan mooy suñu be suñu suñu tefes bi chaque dimanche tey boo xoolee sama statut boo yoroon sama numéro chaque dimanche 10 heures et demi Montagne 5 côté école Moussagne bi dañuy wàcc dañ koy bale keroog dama koy bale benn grand kon damay lancer appel encore une fois gars yi nañ nañ ñu dimbali ngir yàlla booru géej gi ñu tilimal nañ ko bàyyi parce que xale yu ndaw yi non message la parce que xale yu ndaw yi si la ñuy foowee moom borom borom soxnaam sama maman euh, mère Darou ñun dañ ko dañ koy bëggee parce que lan maire bu engagé wu la tefes bi tey da koy jaral mu xeex ba naaw kon bu fekkoon ñun dañ koy ŋaañu duñ tudd duñ tudd ñàmbaar boobu noonu ay waa këram di def kon dama bëgg encore une fois mu ne moom bu fekkee bëgg na ñun tamit bëgg nañ nañ ànd ñu bëgg ñu woote ndaje ñu toog ci dëkk bi ñu waxtaan li nga xamante ne mooy jëmale kanam askan quartier bi ñu teg ko ñu utiliser ko une bonne fois jàmm na ñooy Sénégal jëm si kanam. dëgg la président euh, président dafa mel ni boo déggee jeunes yi wax ni dégg bàjjenu gox ñoom lu ñu bëgg moom mooy ah ñu ubbeeku pour permettre leen ñu dugg mën a liggéey ensuite beneen fànn aussi tamit euh, benn. c'est vrai que deux chefs de quartier la ñu euh, la Hann Montagne am Hann Montagne 5A Hann Montagne 5B mais gisu ni bu ngeen boole woon doole yi ci lay gën a efficace parce que am na yeneen gox yoo xamante ne noonu lañ def. xam nga pour ma réew naa maa ngi jégaluwaat sax si peut-être kàddu yi ma doon wax sànq man je man lii laa bëgg. Mhm. cest à bu fekkee ni da ngeen di def dara yéen. ay mhm. jeunes ngeen di def dara. Mhm. am conseil de quartier. man je crois que la meilleure façon mooy ngeen sol seen dàll. yow ba si kër conseil de quartier ni ma ah mais père ñun kat am na affaire bu ñu jaaxal. lii ak lii ñu ko bañ.

ñu créé benn affaire boo xam ne à mon insu parce que tey Moussa yaa ngi wax lu am importance. Mhm. yaa ngi ni convoqué nga ma benn ñoom ñaar ñett ñett yoon. di nga nit buy wax ne xool diggante yàlla. Mhm. man kenn man je suis tellement disponible. di mhm. convoqué ma. ma bañ ñëw convocation. benn convocation moo fi ñëw si man muy délégué de quartier. lorsqu'il est venu il m'a dit que euh, euh, Abou Dieye. gars yi ne dañuy bëgg a def assemblée générale conseil de man yàlla moo tax may wax. Mhm. moo dégg sama bàmmeel. Mhm. ma ko waxee man si si responsable responsable laa Moussa. Mhm. man da nga ne ma kaay léegi defu ko. man aussi ma téye sama bopp. parce que man maa sama bopp kenn moomu. man maire dundulu ma. subvention dundulu ma. donc man dama nekk benn nit boo xam ne maa ngi si bi fi laa dëkk. jomb naa nag. jomb naa nag. Mhm. ñu abu jëlee lii ak lii parce que dégg naa lu nekk ah, mais mais man nit laa. Mhm. yow du tax ma topp si dara du ma topp mbay seen dara. parce que mhm. mbay seen bu xalaatee moo su ma taxaw moom wax ko affaire conseil de parce que xëy na moom position bi mu jël. parce que da jël seen position bu sax. da ngeen jël position ak benn benn une dame. ngeen jël seen position. Quoi pour man. non non non non mais mais amul problème moi wax moi après après voilà voilà voilà voilà même nga parce que j'ai une question très importante mu le bëgg voilà voilà problème subvention néna subvention yi bi may dem kenn. non xam nga nit buy wax nga wax lu trésorier boobu li nga problème trésorerie xam nga. Euh, non la tax ànd ak trésorier ba ngay dem. dafa disponible woon quoi. dañuy toog. Uh-huh. trésorier bi ni bëggatul nekk trésorier muy yàlla ko yàlla yërëm. Uh-huh. Samba Ka. ñu uh-huh. bëgg ko nekk. ñu ne kon kii en attendant nañ téye parce que li muy wax dix mille francs yi mu. non non bu fi nekkul adjoint am na adjoint. non non non amul benn adjoint si bureau bi amul adjoint. amul adjoint amul. amul adjoint te mën naa génn bureau woon la ko amul adjoint dix huit mille francs yi muy wax boo ko sax ay subvention li ñu ketoon la ñu ñëpp ñoo ko teg.

kon xaa kon xaalis bu dee dépassé wu leen ko yéen ko denc. mais am na loo xam ni moom am na activité am na activité yu ñu def am na loo xam ni. peut-être boo ma mayee. ci fin bi mën naa ko génne woon la ko wax ne. Mhm. déjà sama prochaine. kon kon léegi. daañu jëmaale 500000 boobu noonu am lu ci des quoi. non am na lu ci des. ah c' est bon loolu laa leen doon woo jour boobu ne kaa leen toog jëm def def benn bilan. c' est bon mais c' est bon c' est bon léegi léegi. dañu gis ni benn conseil de quartier la woon muy en montagne 5 ah léegi mu am beneen conseil de quartier bu ci judd. waaw te ñoom i pare woo nañ la. mais yow voilà. Euh, Lamine. Uh-huh. ñun duñu ay xale. conseil mm-hmm. de on a eu des problèmes avec délégué suñu délégué de quartier. Mm-hmm. y avait des problèmes ay contentieux entre ñaar délégué de quartier ak bii. donc il a trouvé que ñun en personne man laa. Mm-hmm. maa jël samay prof moyens parce que moom kenn sooy manqué wax nga ne ma ay ban moyen. samay prof moyens laay jël. dem organiser li ñuy wax élection délégué de quartier. man maa ko organiser. parce que on avait des contentieux avec euh, ba ñu leen ah. mais y avait des problèmes. mais ces problèmes là il fallait ñu régler ko. ñoom bu ñu dellu si nag woote. dañu war ma jox convocation ni ma kaay ñaari quartier dañu dañu bëgg waxtaan. Mhm. na ma kenn wax naka wax kenn mosuma ko wax donc man je crois que je ne suis ñu am benn relation ak ñu ne ñoom ñoom mhm. Iba Sarr wala ñoom Baldé. Mhm. am relation boobu man ma koy bañ. mais man mënu ma ko bañ. comprendre donc man j'ai pas convocation.

peut-être mhm. mais kon bu ma déggee ni mhm. mhm. ñoo woote na ñaari ñaari kii même bu quelque soit nit day jox leen ko responsabilité. non pour ma ñëw man man. du may man te parce que man ku ma ku xam. xam ni man je suis une personne engagé dëgg la waaw. si lépp nag. du question ay ay subvention ay affaire merde yi. yooyu yëngaluma. Mhm. mais man li ma bëgg mooy dañ ma falal ko par exemple conseil de quartier. bu daal des problèmes. Mhm. Mhm. venez chez moi nga ne ma ah père. ma jël affaire jox leen ko sax. mën naa leen ko jox bu ngeen bëggee ça ne na nee na nee na yéen da ngeen. voilà donc loolu la quoi nee na ngeen koy yëgal. waaw ah. beneen Moussa ay wax booy wax xam ne ngi wax waaw ah. bu ñu demee si quartier bi bi mhm. woote foofu di ko si vera mhm. dama def beneen Moussa mhm. quartier an montage se xam naa ñaata nit ñoo fi yeewoo xam naa ñaata kër ñoo fi nekk xam naa li ma fi def man xam naa ko li ma def si quartier montage se xam naa ko bu ñu egg bu ñu egg si loolu maa ngi jégalu waaw kon encore une fois waaw non ma waaw waaw maa ngi jégalu mais dama bëgg mu xam comme vous li ngeen pourtant li ngeen def nii Vous pouvez très bien mais mais mais mais mais mais question parce que ngi mais euh, engagé cadres yi fa nekk tey ji on peut citer beaucoup beaucoup de noms waaw ñooñu bu ñu demee ba toog est-ce que foot du ak travail bi nga xamante ne ñëpp ñoom ñëpp war nañ ko mën a def ensuite euh, ñeneen ñi aussi tam dem ba ci biir éclaté ñee dem fee nekk A ñee dem nekk B voilà man loolu li ma est-ce que du problème leadership moo am am am montagne comme li nga wax noonu. Uh-huh. dafa nekk loo xamante ne comme li nga wax dafa bëri ay nit ñoo dafa bëri ñu baal ma ci wax dafa bëri ay jeunes yu. jeunes yi am dañoo jàng ba cadre ba nekk ay cadre ba pare sa dara day am xew si quartier bi nga woo leen nga ñu fekk la ci ruq non da nga ma war a woo peut jour bi nga woo leen duñ ñëw gis nga problème ferraille montagne montagne montagne kii boobu montagne 5A bi man seen président boobu noonu maa ngi bay seen amul lu ci boobu noonu gis nga li nga wax ne man dama la nangul parce ñun saa yu ñu naroon ñëw sa kër dañu doon wax ay xale ngeen yem leen fii woote ngeen ñun dañ dem dox lu des entre mag a mag kon côté boobu foot bi mun nañ ko d'accord. ñu ko doon wax xam nga peut-être xam nga comme télé la ñu nekk te ay xam nga te aussi ñoom xam ñoo xamante ci bureau bi lañ nekk ay ci bureau bi lañ nekk pas chance sax mais ci bureau comme li mu wax ne xam te tey laa delloo xam ne sax trésorier nee na trésorier amul ci bureau bi te koo xamante ne fu ñu mës a toog voilà fu ñu mës a toog nee na mooy trésorier voilà voilà dina vieux comme dina seetaan waaw maa ngi ñëw waa maa ngi ñëw léegi waa waaw xaama daaneel léegi léegi ma dem ba kër ma defar gis nga maag sage bi sage bi laa seet euh, ki ma ki ma tuddu sànq turam ma dem waxtaan ak mom mané ko man da ay convocation la soxla parce que dama bëgg waxuma sa ay conseil de quartier rencontrer ñaari quartier dem bëgg kër salu Diop tok salam né ko ñun de lu tax mais lool balaa nga koy def da nga waroon dem gis président non président da ngay dem gis ko né ko ah, li laa bëgg dafa sotti pour te dire sax wa quartier beulé ñoy ñoo né xaaliss pour défar convocation yi pour jox ko bu defar waaw mais mais xam nga ñu bëgg nañ gis président structure dafa am lu muy doxé tamit waaw c'est que c'est pas à vous de convoquer le président yéen da ngeen war a lii lañ bëgg def waaw. ñun bi boo xoolee membre bureau bi ñoo fay ëpp ñun dañ naan bu ñu paree le jour temps dañuy woote comme dañuy dem kër kër président waxtaan bu leen dem ay xale ngeen. non waxtaan leen yéen da ngeen bëggoon dem pour yëgal ko kër yi ngeen convoqué réunion waaw yëgal boobu moo dul yow waaw est-ce que yow sa association bi ngay bi ngay diriger est-ce que di nangu euh, membre yi toog ba ci yàgg def benn. réeróo boobu nag laa lay wax réeróo ñun bu ñu comme ñun ñu di tey ñu toog di wax uh-huh. ma ne suba dañuy dem kër mbay seen per abu ne noom bu leen dem parce que ay xale ngeen ñun ñooy dem wax ak moom uh-huh. ñoom de pourtant ñoom ñu ngi dégg de télé la ñoom nee nañ dem ñëw nañ fa une fois di ko seeti sa waaye ni la leen waaw ba pare xam nga xam nga xam nga tamit mais mais père Abou père Abou mais père abu mais per Abou père Abou mais li nga wax ni mais per Abou non père Abou li nga expliqué nii man laa dégg man comme li mu wax moom ne moom mu ngi ñun bis bu solee suñu dàll ñëw toog moom na ko père abu lii ak lii ak lii lañ bëgg dina ko def loolu koy amul problème. kon koy wax ci côté boobu avancé nañ ci. ce que yow jigéen en tant yaay ah, nga gis nga gis. problème yi ce que pare nga. sol sa dàll dem seeti président euh, mu woo njaboot gi yëpp waxtaan. waaw naa loolu mhm. mhm. ci mhm. daal am naa ci yaakaar. te pare naa ci pour. incha allah. président Mbaye en 10 secondes est ce que yow pare nga tey jii pour jox loxo président Abdou Dieye ngeen ànd yéen ñëpp ngeen liggéey. man man kër parang Abdou Dieye dafa mës a jóg. non loolu benn loolu relation personnelle pare nga pare benn loxo bi nga wax nii mais pour te dire moom moo gaaw a fàtte. parce que xam nga mu doon wax sax si sécurité nga dagg ko. man ak ñoo dox pour li jël ñu fay am amul dara amul. pour ñu mën ko di fay ñi nga xamante ne ñoom jël plaque yi ñu doon kii. Mhm. ak sport salle musculation bi doon def booru géej ay projet yoo xam ne dañ ko ligg man mënu wax sax yenn yi. pour te dire yooyu yëpp yaa xam nga yéen doxuñu benn projet kay amuñu benn lu ñu kay nu ñu koy doxee. non non non. non man je crois que je crois que yéen yéen yéen yéen seen problème problème de communication waaw ah, waaw vous ne communiquez pas. Ah, ah, dañu ànd li mm-hmm. ñu ànd dox yi mu ngi fii. Mm-hmm. dama ñëw réunion toog. sama mm-hmm. biir kër bañ laa wax sama biir kër. saal mooy siège mooy siège kii bi quoi. parce que xam nga ko def parce que mbedd bi moment boo xëy na climat bi jublu woon favorable. Mhm. ñu dem si biir. Mhm. ba ma toogee. moom li mu wax nii. Mhm. li mu wax yëpp mi ngi fi. voilà ñoo ko doxandoo. ñoo dox boutique xam ñaata boutique la jokkoo ak. tey jii yokku na y avait dix neuf boutiques. waaw xëy na léegi ñu si ay vingt et quatre. temps boobu. mais loolu nga déglu ma ko. incha allah mais dama ni Moussa. man nit laa. peut-être mën naa am ay défauts. mais je crois que tey bi ñu bokkee quartier. yéen ñii jiital ma xam nga man conseil de quartier bi sax boo xoolee d'une part. man handicap la si man.

temps bi vraiment di di vraiment ñi ngi dalal conseil de quartier bu Montagne 5B euh, bi nga le doyen Abou Dieye mom moko mom moko aussi tamit euh, les jeunes comme Moussa Diak Mbaye Sène ak euh, à gox Adja Ndeye Fatou Sow donne émission bi ñuy wax rek ngir trouver ay xalaat yoo xamante ne dina fexe suñu gox jëm kanam donc vraiment ñi ngi jaajëfal euh, waa kàddu yaraax yi nga xamante ne ñoom ñoo ñu dalal fii waaw di leen jaajëfal bu baax a baax a baax a baax a baax a baax donc euh, pour terminer rek xanaa ñu euh, jox kàddu gi ku nekk rek nga nga tàggatoo. bon waaw nga tàggatoo rek. quartier en montagne ñun ñëpp la ñu dëkk am fa kër am mm-hmm. fay njaboot. Mm-hmm. peut-être am na loo xam jomb nañ di ko def. Mm-hmm. projet ba ñu waxoon parce que man comme kenn gisuma benn projet am na projet boo xam ne mi ngi fi. donc comme wax na ko def nañu recensement boutique yi. def nañu recensement et puis def nañu recensement kër yi. def nañu volet éducation volet sécurité def nañ ko. comme ni pour moom laa doon wax pour moo wax tuuti. nga xawma dag mhm. ci volé sécurité bi mhm. ba être tok nañu bënd bu fa défé ay ay parc sportif mhm. bu ñu défé suñu bor euh, bor euh, kéb bék ba être dina wañi dina wañi lu bari deug la donc yoy yëp je crois que dafon nañ mi ngi ci programme comme il y avait des problèmes motax lool moko gën je préfère euh, marquer le pas taxaw merci président mais donc ma ngi lancer ben appel bon li mu waxoon. yëpp ni mhm. mhm. plages yi ñu doon wax yëpp. ay plages yeeg ak yëpp. Mhm. c'était c'était déjà réglé. merci président bu ñu d'accord bu dee d'accord nañu. li ñu def projet bi. mën nañ ko def. pour commencer def ko à à montagne 5B. incha allah mooy 209 maisons yi. ku nekk di defal la benn plaque d'identification. parce que dem naa mairie wax naa ko mais nee na am nga am nga droit de avec relation avec les délégués de quartier. donc on a prévu 209 230. Mm-hmm. plaque mm-hmm. yoo xam ne bëgg nañ ko def incha allah si kër yi mm-hmm. mën nañ ko def si boutique yi mën nañ ko def si euh, restaurant yi mën nañ ko def si tailleur pourquoi loolu parce que on a on a on a on a créé benn système de parrainage comme li mu wax parce que nee na fii ñu bëri am nañ fa doole pour mën dimbali donc système de parrainage mi ngi fii donc dossier yëpp document yëpp a ngi fi incha beneen bi on va vers une évaluation président sa tàggu euh, sa euh,

di gërëm waa Hann TV. Mhm. di la gërëm yow. Mhm. ak euh, ñoom grand layti ak mhm. waa quartier bële. di wax rek ne comme ñoom initiative bi ñu jëloon. nekkul initiative bu baaxul initiative bu baax la parce que ñun ñëpp. boo seetloo ñaari quartier lañ. Almontagne 5A ak B. ku ci nekk yaa ngi sa quartier ñaari chef de quartier. teewul ñun ñëpp jeunesse bi yëpp ay CM daf leen fédéré daf leen benn. te mosuñu am réeroo ci ay CM zenes bépp ay seen daf len boole dajale len ñu ben ñi mhm. ñuy xàccandoo di dóorandoo kon pourquoi pas quartier war nako man euh, ben ben conseil de quartier. loolu ma ngi len di wo ci loolu dal ñu ñëpp ñu booloo nek ben inshallah and liggéey daal. ajaratu. jërëjëf. amul ñàkk ah. waxtaan am. Mhm. ñu leen di sant yéen ñëpp di gërëm moo fi te sant ma sama mhm. ak sama ICP. waaw ci roxee kuy. ah du dem nag te en tant que waxuma ci santé. Euh, di ñaan rek euh, yaay yi ñu continuer di yóbbu seen doom yi mhm. di leen ñàkki ah feebar bi bu mu tax ñu bañ a yóbbu seen doom yi ñàkki ji leen di ñaaxaat ñëpp tamit ñu fonk mesure barrières yi mooy di takk masque di raxasu ak saabu régulièrement mhm. di def gel alcool seen loxo jërë ngeen jëf sant naa ñëpp gërëm ñëpp merci Adjaratou Moussa le mot de la fin jégaluwaat ñu ñu ma ñuy euh, balaa may kii dañuy dañuy gërëm sax suñu père père Leyti waaw gis nañ taxawaayam ak li nga xamante ne tey boo xoolee lii nii tey mu am moom moo ñu ko wax duñ naan bu lëg lekkee olom na ko gërëmee cooy dañ koy sant di ko gërëm fi nga xamante ne fii la nekk muy affaire culture am bii mu nekk di ñaan le maire Babacar Mbengue mu teg ko loxo l'état tamit bu fekkee mu ngi seetaan lii autorités yi nañ ko nañ leen jàppale parce que lii dafa am solo parce que message yi ñu ciy jàllale mën naa ne lii rek mën na defar dëkk parce que tey boo xoolee fi gis tey wax si wàllum environnement wàllum set wàllum sécurité lépp dañ koy jàngale di woo gars yi di wax ne lii nii yarax la nekk na ci waa yarax bàyyi xel autorités yi nekk si jaspora bi nañu leen jàppale ci côté matériel ci côté lu mu mënti doon dooleel leen ba li nga xamante ne mooy jëmane lii kanam mu jë yàlla defal leen si ndam di di di jégaluwaat bu baax sama père di ko wax ne ah ñun de nii la ñu mel ñun duñu wax sa ginnaaw li nga doon dégg yëpp ñun daaw ñu ko def ñun soo gisee la ñu wax lii defar rek moo ñu tax a jóg ñun nag nii la ñu mel ay ndaw lañ foo nga comprendre di la sant yoo tamit di la gërëm bu baax yow suma père nga mën naa ne comme ni ko Mbaye waxee karab karab tamit yàgg nañu boole vraiment di gërëm mool yi di gërëm Maodo di gërëm bàjjenu gox bi aussi tamit di wax ne tamit euh, man damay jiite association pour la l'assistance des élèves primaires de Hann Bel-Air association bi chaque at dañuy joxe ay dons de fourniture may xale yi ay fourniture euh, muy élèves primaires yi di wax maire comme ni mu ko defee woon mu bàyyi ci xel autorités yi ñu nekk ci diaspora bi ñu bàyyi ci xel ñu mën di ñu bàyyi xel di jàppale li nga xamante ne mooy xale yi parce que àdduna bi moo toll foo xamante ne kenn mënul dem saa ni tey boo yoree say milliards toog sa rux doo dund il faut nga woo ay nit pour nga mën a dund di leen tàllal loxo di leen wax ne ñun ay ndaw lañ ci quartier bi lañ nekk ku ci mel ni Mbaye Sène ku ci mel ni ñoom Cheikh Souare ñeneen ñeneen ñu di yëngu ci wàllum communautaire di yëngu ci wàllum social dañuy fëgg fajar ci ay ordonnance fëgguñu lu nekk lu ne dañu siy fëgg incha allah di wax maire saa yuñ fa ñëwee tàllal leen lu mel noonu jàpp leen askan bi moo ñu moo ñu moo ñu ko moo ñu ko sas aussi tamit di wax ne waa montagne cinq ñu bàyyi ci xel côté école mu sañ bi chaque dimanche gars yi nañuy génn di nettoyer géej parce que gars yi boo xoolee li ko dalee environ littoral bi yëpp li ko dalee euh, waalo ga ba ba xeere suñu koñ rek la gars yi di entraîner ñun rek ñoo ko fi am te ñun ñoo ko xeex kon di waxaat gars yi na ci gars yi bàyyi xel ñu dëkkee montagne 5 nekk si diaspora ak fu ñu mënti nekk bu ñu seetaanee li nañu dimbali si matériel nañu dimbali si loo xamante ne tey nañ ko fa teg bu projet bi ñëwee tamit lu mu fa fekk tamit mu doon lu gën a gën kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp bu wax ji baaxee xamee na yàlla la bu wax ji dëngee tamit nga xam na ñun la ay ndaw lañ sax di sàkku si yéen ñaan ngeen ñaanoon ñu yaraax jëm sa kanam Sénégal jëm sa kanam jërë ngeen jëf ñu ngi ci njeexitalu euh, émission pencum Hann dalaloon ci tey euh, conseil de quartier bu Hann Montagne 5B bi nga xamante ne le président abu Dieye moo ko jiite di jaajëfal suma techniciens yi di jaajëfal kàddu yaraax bi nga xamante ni moom moo ñu dalal fii di leen fàttali rek ni corona bi mi ngi fii nañu respecter mesures barrières yi nga xamante ni docteurs yi édicté nañ ko mu ngi fii mi ngi faat donc ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox di jaje prochainement